لا يدون بس يدون على الله هلك الدنيا هل منك الأماء الزب حالا انا موميت كونتان ما باغ na لول صح من lool sax ah كونتان de maa ko gën a kontaan sëñ انا هذول أنا ما حال ما أكيد لا أنا الكلام من أكيد <laughs> ما بلا كذا نو نو نانا يا وتسا كونتان يغول فين كي موم داك نكو لا غير كونتان والله والله والله لي واخ لي بو آه، بمني سانت يالا ناي واخ هذا كذا حلا الله يا كان باسكو لما سخلون من نام لقي ما أمكو بارك الله فيك هذا problem زت حال ما زكنت هوني بس كنا من سخلوا بوخم يجن من سونا لول لول لول لول لول تي il faut que ما دمش زنا كنا البوني لا أنا كان نوني كان كان كودي كان بوني لين رجلا بقيت زم كرو أدونا زنا لقل زنا لقل وينك بريز دان فرنسا هذا هذا البريز دان فرنسا الله ربنا كله بحر على كلمة الحل وكلمة بلكي وكلمة الكسر إلى الفراسية ولا إلى الفريسية علم الكل علم الكل إلى جبوتيا mënul <laughs> من ah déedéet yow santal yàlla nee na li muy def ci nit ñi États-Unis xam nga kooku sénégalais la woon nee na turam dëgg-dëgg tafaa la woon fii la dëkkoon marché Ndiarème yaayam moo doon. jaay la la kalama ne kel Tafa. ilal jubbuti. <laughs> nee na jubbuti jubbuti xam nga ni jubbuti. jubbati nee na maanaam président boo nekkee sénégalais bu la def président beneen réew ci jubbati lay jaaree defar la président foog mu la jënti jubbati mooy xaasakal ilal jubbati laasakal <laughs> laasakal léegi loolu lu muy demee parce que man mi instant bi toll ni téye ko moo ma ñor ذلول كان موري لا ذل غوري ذل خرمنا قال لا حبر لذيذ إلى لا أراب سوتيا على ناكي كيلو كيلو أنا مو يا جسنا كجيل فمني دان كنا سام ما تخص خلام دم كنا بام يور فري مو يوم مام لي <laughs> واو واو واو يا غير يا غير كرو كرو كرو كده واو واو نولي كرو كرو كرو دون دون لوكا بس كا ماجي تي بدو réglé waat ndax sama maam. moom dafa nekkoon nit koo xam ni. kër gi mu dëkk moo nekk nii. léegi il fait que ñun ñu ñëw fi. pour defaraat kër gi. c'est ça sa maamalal. yaayatal baayatal bokkal yaazatal baani. ruusal luunu. aanakal junn. لزم الحرم الكلي على الإرهاب السعودية على المدينة دخول الكلمة nag wa nekk état feene astafurlah moom moom ndeysaan day dem fu ne di ñëw yenn saa yi dañuy nekk fii mel ni mu ngi États-Unis moo ay waxam day ni maa ngi États-Unis fu ne la yóbbu te du paas nee dafa am nag bu nekk fee ci Arabie Saoudite muy bokkoon ci nag yi nga xamante ne ay nagam lañ nag bu am lu soo ko gis de sa papa sax mosu koo gis boo hésité bul hésité bul hésité nee na am na bu fa nekk bu verte yow la ko bëgg a jox pour sa wàllu ñaanlu pour doon président mais sëñ bi nag nag bu am doo ko doy na waa def dee déelul bul sikki sàkk da lay juus déggul olof kon wax ji mën na la cee dox boo mooy tëgul président bu groupe whatsapp sax doo ko dox neel waaw rek خلفك إلى خال من كل إلى خال خال خال خال من الله خال كلي ولا أبيون إلى ترافيس يا خال من كلي نينا نكوي foog ñu jëlal ko tagal ko passeport est ce nak nag am nam ay nagam dañuy am ay stéré dañuy am ay carte d'identité dañuy am passeport légui nak bi avion bi yow yaa koy dag ak restauration bi nga xamanteni ni ndax nag dañuy jël ci stock ñu di laaj biñu bëgg ñu leen koy jox hmm. lolu yow ya koy dag day tollu ci 300000 lolu la mom ci limbal lim la bëgg a dimbal wasaka euh. la mu leen daal la lay xamal sama aaju day faju sa seen aaju day faju yor naa ko mën na ko te dama koy def ñaata nga di trois cent mille la laaj. trois cent mille. dama lay jox trois cent mille léegi. waazal kare waazal kare waazal kare waazal kare. maanaam fan yii dafa génne wax bu bees. Mhm. maam trois cent mille mooy cinq cent mille nekk ci moom man maa jub cinq cent mille la wax dafa génne ay wax yu bees ay wax yu bees. jar na ko jar na ko. jar na ko jar na ko man maa nekk président rek. di mën a ñuus tubaab yi. ak teg leen ci code. loolu nekk sama xel quoi. xaasa xaasa dina nekk léegi. وجودك الله في الحالي كان استهلك النادي استهلك النادي لونك الموني léegi dañuy joxe xaalis bi léegi wala nañu def Eh, léegi da nga may may tuuti. Uh-huh. ma sama benn uh, xarit. Uh-huh. moom yàgg nañu. Uh-huh. mu uh, jox ma xaalis parce que moom laa dénkoon. sama xaalis مالك مالك طالك طالك قولي قولي قولي حصيلة قولي قولي قولي ألو قولي ذلك فاهمين فون ne. ذلك يا يكون dimbali ma dama ko soxla jaaral keur ga nga indi ma xam nga fu ma nekk ah sama keur maam ya bëgg na moy keur ga ya nga na xam. non duma ma ko wax ci téléphone bi yow ñëw rek bo ñewé sa xol dina sedd wuyu ma indalé ma naa ko la bi non ñëw rek dama ko soxla. wala zël. waaw baax na baax na. acca yaa ñoo far gaawal merci. ko ko moom olof ma ci wax la conseil la c'est bon. dañu dañu dañu jël jéem a barale sa bopp ci fi ñuy xaw a xam nga dañu yóbbu ay resto sax kii kilifa la. non leen daal mën naa la ko promettre. bis bu ngeen ma defee ma nekk président France xam la naa la wutal. mën nga koy wax maa jot waaw. xam la laa koy wutal. naa ko wutal avion boo xam ne spécial du koy yóbbu néegam ak néegam xam nga loolu mosoo ko gis. Mhm. néegam ak néegam. سلد بيك سلد بيك لو ما خالف لكل على الأقل إلى الديوان الأزريني كي دفع يعكم تناك دفع يعكم تناك توقع بيانا نمو إذا خمو فمي جولي لا ما نجي جولي تكاو تأربا دكتور أليك منيو دكتور آه، أليك منيو دكتور خمو خلا خمو خلا من بيقولوا خمي دينا خمو رك مم داي نكسي كيوي إلا خمو waaw eh, merci beaucoup ah, mais Ndiaye. mais c'est honnête. mais nama naa leen de yéen sama gars yi. mais mais mais xoolal xoolal xoolal xoolal biir embouteillage bi la. xanaa moom géej waay rekruxaan yi ak travaux BRT bi moo ñu tardé. mais dara xëccal baa bi toog amul jot damay dem. damay dem wala dama. non xëccal baa bi toog. fii si yow xam nga ni aw ma temps. doo ko ci non booy si di ma tolloo rek. xam nga morning bi. fan la ni yow ba ma koy defal. Mm-hmm. wax yàlla amoon na xamoon da toog ay nit di ma woo. du xam naa ne non seen biir. waroon def loolu amal sutura tuuti nag. waaw wuy ma yow yàlla waaw mais yàlla moo ma indi. sa xaalis na loolu du merci beaucoup mais li ma la wooyee leen dong la. lii rek ñoruma dafa am leneen lu ma ñor. parce man fu ma sóobu damay bëgg nga sóobu fa. gis nga euh, jëm yi ngay gis ni kii naar la.

kuy mën ak ki koy jéem mënut ta nekk benn te ñi ay ndaanaan lañ. booy fii sëñ sa caaxaan yi sëñ bi. kii daal la. sëñ bi ñoom dañoo bëri kersa nag dañoo bëri kersa. non xaaral dañuy naaj la. dañoo eh, kii non eh, xool ko. non eh, xam nga leen. non xam naa leen kay. li ma la waxoon la rek. non dafal nànk dafal nànk te yàlla fii si doon too doona woon nga ak. eh xam nga kii kan ma ko suusal maqsus la kasa ba non sa loxo nga xam maqsus question doon nga ko waaye nga naan ay fa koy eh bu lekkee li non li nga sama jabar a tax ñi xam nañ ma def sama chéri fanta fanta fanta yëgoo problème bu ma la fanta boy, ko eh ma naan la ay naari jóge Arabie non non non. bàyyi ma waay. xalu kanamam não di mel ni looy. mais attends. eh may ma rek occasion nga ma may. fils dimbali ma rek. eh ñii occasion nga may maa koy réglé. luñ def sama jabar. waaw wuy ma Não xaw ma taxaw. bàyyi bàyyi waaw taxaw ma Não tudd não tudd. Jackson Jackson ah. Não taxaw eh noppil noo tudd. MC Xeus MC Xeus. déglu rek. fils. waaw ma xamal la wuy ma occasion nga ma may. ota may ma ñuus leen waaw déglu ma may ma ñuus leen waaw d'accord naa mais déglu ma eh, dem fan eh, ma xool de xamal ma ni ñu dem gaay fan fuy ma taxawal taxawal taxawal alors sa eh eh, eh may ko mu wax may ko mu wax tas bi lan doon làq naar naar ana dëkkandoo ci kër gi dëkkandoo ma wala eh kaay lamba a seen a eh, sama 300 jëm daan naa daa leen xamal ah? ne eh, kaay ah, eh, defal ndànk ngay rakk rakk mais ni ñu wax. dégg nga a ma dugg yàlla ñun ay action la a maget maget la ñuy waaj a génn ah, ay son. di ngeen maget non nekk ci mois d'avril. dem poisson poisson lan sama yaay toj lay sa bopp bi nga naan poisson wéroo eh naa fi rey nit ici repose gi lay xewee non non naa fi rey nit poisson daf li nga wax yee sëñ bi